ñi ngi leen di nuyu di leen ziare ci seen télévision Touba Argentine ba tey ñi ci seen wàccaayu màggal Touba 2017 tey jii suñu euh, gan bàyyi bi ñëwoon seet ci studio bi bëggoon a fësal yéeneem ci xasida yi Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul yi sëñ bàyyi ji bi bismillah aouzu billahi min aseytaan rajimi wa inni uhiisuha bika wa zurriyataha min aseytaan rajimi rabbi a'uuzu bika min hamasaati sayaatiini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruuni bismillahi rahmaani rahiimi mafaatihal bisri wal amni wal janna fi salaati wa tasliimi ala muqiimi sunna aadu salli wal tusallim sarmada ala allazi samaytahu muhammada aadu salli wal tusallim sarmada على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس سالحين العامين وواد لهبي حبل رسول الله في أقلامي بسارة يا من محا ملامي وجيل أفضل الورى محمدي منك بسارة الكريم سمدي ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وسيد إهلامي li ahmad al muxtaar yow silil muna yaa faa'ilan qadamtahu fil umana uktub salaatan wa salaaman laa yuraa misluhumaa liman asaa lal xayyaraa aati rasuulillaahi maa lam yakuni walaa yakunu abadan li mumkini katabtu annal muntaqa qad faaxa man mada wa man yaati wa man fii sa zaman taslimu baaxin wa salaatun xulidat ala allazi saglu nisa ma waladat habli rasulillahi yaasal xadari muraadahu bila asan aw kadari yaa rabbi yaa jamiilu yaa baaxi habi lil mustapha muna bi xayri rahabi salli salaatan suyat bi busari musalliman ala fi xaaril basari lil muntaqa awsil salaatan bi salaam kama lahu aw hayta afdalal kalaam لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه لا وسل لمختارك ما لا ينصر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أو سل النبي ما يرخب فيه فأنت الواهب المراقب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لوكت بصلاة وتسليما يا خير بر لم يسل أليما يلا وسلم ولتسلم كل هام على الذي كتابه خير الدهام إلى نبي الله نور الدهر صل وسلم من كل سحر للمنتقى أوصل بخير اللوم بسارة تخلد كل يوم نوير بجاي المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري nawir bi jaayil Mustafa mamarri wa majlisi wa maskani wa birri bi aqi waajhika al-karimi lighfiri wa kulla ma layya anni kafiri ya laaw ya rahmanu ya rahimu ya hayyu wa ya qayyumu kulli yahmiya آتني الأحسم والكتاب وتقني الحساب والعتاب آتني الأحسم والكتاب وتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد salaataka allati salayta alayhi wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salaamaka allati sallamta alayhi wajzi anma wa ahlahu allahuma bi xaqi wajla taala alkarimi salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sabihi wajal haasa almaktuba bi jayi sallallahu taala alayhi wa sallam min muqaddamati albisri wal amni wal jaddi allati wuxida almutaqun amin ya rabbal alamin amin jërëjëf suñ baay jërëjëf suñ baay yow am na solo lool parce que bëgg nañ lool bëgg nañ kon de xanaa loo ñuy dénkaat ci màggal gi ci ay kàddu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Touba Argentine TV ñu ngi leen nuyu te di leen siyaare bu baax di am mbégte ñëw fii di waajal 18 eh, safar daanaka rek ni koy waajal waaye waajatu noppi nan mm. pare nan incha allahu rabbi daal di koy fas yéene santale sëriñ bi boroomam moom mi nga xamante ni moo wax xarajtu yowma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fi sahari safar sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna xaadiman fi daw mi waan akoona saafihan li xaw mi waan akoona saafihan li xaw mi waan akoona xaadiman fi daw mi kon nag ñi ngi sant bu baax di am mbégte di di waajal di suli safar fas yéene santale sëriñ bi boromam insha allahu taala jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon jërë ngeen jëf jërë gis ngeen loolu ñu ñaanal ñëpp màggalu jàmm suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm defal ñëpp ay xéewal ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu